asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah lundi 17 mille 2020 ñu ñëw ci yëgle kaay yi moo xam sunu lamb la record wala Leewtoo TV bu dee yëgle kaay bi di sunu lamb la moom dafa xëy ñëw ci benn combat boo xam ne day daa mel ni komba bi daal combat bu ndeysaanu la wala combat bu jara ragal jëm ci ñaari mbër yi nga xam ne nag ñoo ko war a seq muy diggante Siteu ak Papa Sow ñi nga xam ne la 5 avril la ñu war a bëre ka ko tëgg du kenn ku dul Pape Abdou Fall borom Paf production mu mel ni ki nag bu dee wàllum Siteu la moom mu mel ni combat dundam daa mel ni ci la jëm de ndax lii moom su ko ñàkkee dana metti lool ci moom moo tax nag kàddu ga genn la daal maanaam daal jéem a gañe combat ba ngir nag bañ a wala gën a sori boog saaku ba ndax ñàkk ko moom mooy gën a dugal sa bopp ci lëndëm wala ci àllum njuuxaan boo xam ne doo xam fan ngay jaar pour génn ca ka des mu war koo seq ak moom mooy Papa Sow moom itam day danse la yëglikaay bi jàpp ne moom la jëm ndax nag li ko waral mooy li leer ba leer daal dàqam bii ñu ko dàq Gris Fass moom war naa tax ba combat bi moom itam su ko perte nar naa metti trop trop trop ci moom moom Papa Sow loolu yëglikaay bi su lamb xëy tey ñëw wax nu ko ba tey dañuy des ci Papa Sow moomu ak record xamal nañu ne nag li leer nag léegi mooy écrém ba nga xam ne nag moom mooy jàmba jàmbaar Wrestling Academy nag léegi taxawal nañu bureau ba leer na président ba ki nga xam ne nii la moom mooy per ba maanaam Mamadou Diaw ba ñu naan ko père ba mooy président wu écrit ba loolu mooy li leer waaye li nga xam ne nag moom mooy wàllum finance ba itam am na koo xam ne nii moom la ñu ko dénk waaye secretaire général ba moom li leer ba leer jàppal ki nga xam ne mooy Amadou Sy la mooy secrétaire général lu écrit ba leneen la ca des mooy wàllum ba président ba Khalifa Fall la na wax li nga xam ne ni nag mooy wàllum animation ak mobilisation moom ka ñu ko dénk mooy Amdi Moustapha wa Amdi Moustapha Dramé moom la ñu dénk loola moo ànd ca ku ñuy wax Mor Diouf ñoom la ñu dénk wàllu mooma lu jëm ci wàllum tamit li nga xam ne nii moom moo di commission marketing ak communication Aïssatou Ba la ko dénk loola moom la moom la ñu yëglikaay bi tamit xëy wax ñu ko waaye loo jëm ci wàllum saas ya tamit saas ya moom ka jiite mooy El Hadji Malick Diop mooy wàllum saas ya waaye nag lu jëm ci wàllum technique maag ña nga xam ne nii ñoo yor wàllum bëre ma di ko jàngale entraîneur principal ba moom laay njombor la maanaam Ablaye Thiam moom la ñu ko dénk wàllum lit farab ba nag entraîneur ba ko yore du kenn ku dul Balla Diouf ma ngeen xamoon lato itam moo yor ci lu jëm ci wàllum lutte olympique baak gréco-romaine baak yu jëm ci ki noonu lato la ñu ko dénk wàllum box sama moom Jibril Kanji moo leen yor ci wàllum box di leen préparer préparateur physique ba nag sukkandiaa la ñu koy wax mu mel ni kon daal écrit Papa Sow ba moom léegi tegu na ci ab raay fas yéenee nag dox jëm ca kanam yëglikaay bi di su di record moo xëy ñëw tamit yëgal ñu lu mel ni ki noonu mu mel ni ki bu nu continuer wala ñu dellu fa nga xam ne nag moo di sunu làmb sunu làmb moom daa ñëw di laajtewaat ban promoteur mooy organiser combat revanche bi nga xam ne amoon na fi fukki at ak ñett ci ginnaaw muy diggante Tapha la le géant di Bawol ak la jatoo da Waalo muy Lac de Guiers de 2 yëglikaay bi xëy tey ñëw di laaj kan moo war a taxaw ngir def lu mel ni ki noonu keneen koo xam ne nii moom am na combat ba décidé ca mooy Abdou Diouf ba nag ca kanadaa daal la tegi bëtam ngir fas yéenee defaroo ngir fas yéenee jàmmarloo kii nga xam ne nii moom moo di Gris ki nga xam ne nii moom tëg na combat la 4 avril muy Sambay Fall bu Caaroy diggante général bu Faas ak Kulifay 2 Sam nag yemu ca jëlaat na beneen grand combat dugal ko ca biir muy diggante Cheikh Super Jamono ak 2 Siga pour le 4 avril mu mel ni ki kon daal Sam daal la mu nar mooy le 4 avril moom mu yëngal koo yëngal a yëngal ba mu yëngu loolu mooy li nga xam ne nii moom la ñu yëglikaay bi xëy ñëw tey dinu ko wax waaye fa nga xam ne nag moo di ca Leewtoo TV moom bu nu fa demee la nu fay fekk mooy combat démb ba nga xam ne jéeya ko tëggoon drapeau Alima Ndione ba daal mu mel ni ki démb tàngoon na neexoon na foroon na furoon na waaye li leer ba leer moom sécurité ba moom manqué wul dañu ko sécuriser ba mu doy sëkk ndax nag olof ne na ku ndóbin rey sa maam boo gisee lu ñuul da ngay daw ndax la ko waral mooy la amoon ci diggante Alioune Seye ak ñàkk jariñ moo tax daal gars bi yoon moom mayuñu kenn foo xam ne war nga faa yekke sa nag bay def loo xam ne lu jubul lay doon wala ngay yàqal nit ñi seenum seetaan moo tax sécurité ba doy na sëkk waaye ba tey bu ñu demee ca Leewtoo TV rek ki nga xam ne nii nag mooy caatu yof moom jël ba nga xam ne nii moom la daan ki nga xam ne mooy bébé julde moo rëy ba yegg ci xeetu rëy goo xam ne nii moom foo ko takk weesu na ko loolu démb ci arène national ba fa la amee woon waaye mu mel ni ki nag bu nu continuer ci yëglikaay bi nu suñu làmb moom beneen combat boo xam ne nii nit ñaa ngi ciy wax muy diggante Garga Mbossé ak Sa Thiès Baba Diaw ma nga xam ne nag moo jiite Thiam production te tëg diggante ki nga xam ne nii moo di gàmmu gi ak soq moom daal combat boo daa mel ni daal intéressé moom def na ko ko yëgle kaay bi xëy ñëw tey dina ko wax waaye mu mel ni ki promoteur itam fi mu nekk ni daal ñu nga ca de ndax nag yëglikaay bi mu ngi ñuy xam ne idaali ñi ngi moom jàkkaarloo la woote alal ba jiinu jëm fa nga xam mooy ci arène nationale ba combat ba mu tëg nag mooy diggante ki nga xam ne nii mooy ñagas bu bool daal ak ka nga xam ne ni moom la war a bëreel moom la idaali ñi ngi nag war a def ab jàkkaarloo ngir ñaari mbër ya ñu war a wane wu wane seen bopp yëg kaay bi xëy ñëw tey dinu wax lu mel ni kii noonu waaye leneen loo xam ne tamit dañ koy fekk fi nga xam ne nii moom moo di ci yëglikaay bi mu mel ni kii nag muut loolu lañ ne moom mbaa roi des arènes bi ren du def année balance yëglikaay bi xëy ñëw tey dina ko wax waaye duñ ca yem de ndax nag ki nga xam ne moo di Fallou Ndiaye moom le 22 février lay ñëw ci diggante caatu yaraax ak serpa ba tey yëglikaay yaa ngi xëy ñëw tey dina ko wax waaye le 23 février arène nationale tam nar naa tàng nar naa yëngu ndax jet li magi soq mooy jàkkaarloog jam téeri bu kayaar yëglikaay yi xëy nañ tey ñëw wax ñu lu mel ni ki noonu waaye dañuy dem nag fa nga xam ne nii moo di ca lamb simple ja mu mel ni nag weekend bi moom safoon na sàpp faraan nag yëglikaay bi ne premier defe tam am na ko ren ca ñaaxar loolu moom yëglikaay yi xëy nañ tey ñëw wax nu ko ka ko ko yóbbee nag mooy kori yas di Serigne Ndiaye numéro de moo ko daan waaye ñaaxar googa itam booy fay ordinateur ko fa daan waaye ordinateur mooma itam moo fa daan kori yas waaye yemu ca de moo fa daan ca final ba óbbali jël lañ fa tegoon waaye moom tamit yemu ca moom ordinateur ndax ba bët setee daa dem ca Jilor daan fa ki nga xam ne nii mooy gaan sec Ibou Senghor numéro 2 jëlati tournoi ba nga xam ne moom lañ fa tegoon waaye daa continuer ca guddi ga une matin ordinateur wàccaat na fa nga xam ne moo di Foundiougne bëre fa final mook Serigne Ndiaye numéro 2 daanati ko mu mel ni kon daal ordinateur loolu la def ci weekend bi waaye booy fay itam bañ ko daanee fa nga xam ne moo di ñaaxaar daa takki baga sam ñëw ndakaaru finalu démb ca drapeau Malick Ngomba daan fa nga xam ne nii moo di caaka fay ca final ba demi final ba mu daan libidoor bu ngunjaan jël lañu ñu fa tegoon mu mel ne ki daal nday Kumba Fall bu bëggee dëgg-dëgg weekend bi moom lamb ji jaxoon na waaye la ku gën a jaxal mooy lambi simple ja déggal ordinateur la mu def nday Kumba Fall ordinateur a jël fa nga xam ne moo di ñaaxar ñu ne déet ne waay ordinateur bët set mu dem Djilor jël ko ñu ne ko ca nga yem mu continuer une heure du matin la wàcc ca bag ba jël lañ fa tegoon ci kaw Serigne Ndiaye numéro 2 mu mel ni kon daal ni leer ba leer ordinateur fu laay jaay Dakar wala ma ñam jeexal ko boo ci tolloo di bëre woneel sa bopp waaye du bëre fii ak grand laay xaar ak combat te nga mën a bëri wóolu sa bopp maa ngi lay féliciter yow ordinateur ndax nag li nga def moom la mbër di def te dégg naa kat yàgg na koo def waaye du mën a ñàkk Cédric Diédhiou ñu ngi koy massaw di ko ñaanal yàlla loolu arrivé ci kawam yàlla na wér ak jàmm ba jóg ndax nag fii la ne ci kër gi ci Leewtoo te itam ku disponible la ku nangoo sonn la ci liggéey bi jaamu séeréer la nag loolu doo nga ko yàq ndaxub joolaa la mbokk waa Leewtoo TV nu lay nuyu di lay gërëm di la sant Babacar ngeen àndaloon maa ngi lay nuyu di la ziar di naan di la masawu lay delloo ah, di la ñaanal jàmm yow tamit di masawu ñëpp rek waa di wax ne coono moom dañ na njëriñ a si ginnaaw coono xam nga boo sonn rek coono du am maanaam njëriñ du feeñ daal moo tax ba nga xam ne ah coono bu ñuy sonn rek yàlla na yàlla def après njëriñ topp ci barke yonent bi sallallahu parce que tamit damoon nañ fi benn Euh, réunion boo xam ne ak Pape Abdou Fall ci lamb Siteu Papa Sow dem nañ fi tamit ci face à face su Fallou fële xam ne mooy kunun dem fi reportage su lamb dem mais loolu lépp bëgg amateur yi bëgg waa lamb rek parce que loolu la ñuy xaar si ñun quoi Babacar loolu am na solo nu ñëw nag ak sunu laam dafa xëy ne combat bi nga xam ne moo war a dox si diggante Siteu ak Papa Sow 5 avril nee ñu combat na de tous les dangers ndax ki nga xam ne mooy Siteu moom lu mu gis mooy mooy gagné rek ginnaaw mu jógee si défaite Papa Sow aussi ginnaaw bu ko dàkkee écurie Fass moom tamit gagné rek moo ko war Babacar. waaw ñoom ñaar ñëpp daal boo bëggee dégg-dëgg ñoo bokk jàngoro fi mu nekk nii. xëy na nag jàngoro yi b amee wuute du bëri wuute na ne moom dina am na lu koy xaar parce que bëgg na tey ubbi écrit boobu ak ndam ndam li nag bu ko amee ci kaw Siteu defe naa dina de meg nekk lu nga xam ne nii dina may écrit bi départ bu wóor a wóor a wóor Siteu itam dafa jóge woon ci defet digganteem ak guy gi daaw yaakaar naa ne bëriwul mu def année blanche tey nag li mu bëgg mooy relancer carrière nekkaat fa mu nekkoon parce que ku ne xam ne ne tey Siteu bokk na ci leaderu làmb yi loolu suñu borom dogal na ko yaa ngi dégg xale la donte macha allah ma itam ci public am ak ci bëreem ak ci li muy drainer ak ci taxawaayam ak ci communication yàlla def na tey mu bokk ci mbër yu mag yi nga xam ne ñu ngi ci làmb ji kon defe naa ñoom ñaar ñëpp ku ci ne tey li lay xaar moom mooy ndam rek parce que ci defet la ñu jóge wala bokk ci ne yaa ngi jóge ci defet te Papa sax ci defet mën naa ne ci la jógee yaa ngi dégg ak année balance c'est defet benn la amee année balance kon defe naa ne tey daal wax lu rëy leen di xaar ci combat le 5 avril bi. ci papa boobu sax la ñuy des ndax li ginnaaw bu mu créé nag école de lutte jàmbaar wrestling académie moom nag taxawal na démb euh, bureau bi bureau bi nag ki nga xam ne mooy per ba moom la def président euh, laay ñombal moom moom mooy coach ci principal Babacar. waaw loolu am na solo per ba di ah di papaay papa waaye tamit bu ne yàgg na leen xam seen diggante tey su taxawalee écrit bi ñu def ko mm, président bi ah loolu xel da koy nangu ñu jël laay njomboor tamit dénk ko wàllum coach principal ak ñeñ ko booleel loolu tamit defe naa ne ah borom xam-xam la ñu dénk la mu xam parce que laay njomboor yaakaar naa ne ku ne xam na ko ak équipe nationale ku ne xam ko ak drapeau chef de mu nekk mbër bi nga xam ne nii macha allah xëy na lit avec frappe la deful carrière bu ñuy xaar mais lit simple moom yaakaar naa ne na ci empreinte ba nga xam ne tey kenn mënatu ko ci fàtte kon daal ñu ngi leen di wax seen écrit boobu samp nañ ko ah xëy na li ci bu ñu liggéeyee daal yàlla mën na leen a jox ay résultats yi nga xam ne nii moom lañ ciy soxla. jeune tam mi ngi wax ni que ginnaaw ñoom ñaar bu ñu bëree si calaf Gaston Meng bi en 2006 13 ans après ni ngi wax nag ban promoteur mooy tëgg revanche boobu diggante ki nga xam ne mooy Lac de Guiers 2 ak Tapha Tine waaw da jar laaj ndax nag seen revanche moom lu war mën a neex la Tapha Tine Lac de dañoo war mën a bëri te xaw ma promoteur yi ñëw nag waaye promoteur bu ñëw boo ko tëggee am parce que tamit ñoom bu ñu bëreewul tamit mën nañ leen a tas ndax comme li may wax rek làmb ji dër bi dañ ko ci bëgg a jëlee te dër daa war di am ci làmb te diggante Gris Bordeaux ak Tapha Tine bi la yaa ngi dégg Lac de Guiers 2 tamit digganteem ak tafaatin Tine bi la kon daal li am solo mooy promoteurs yi ñu ngi noonu combat yaa ngoon kon li nga wax na promoteur yooyu nag si la ñuy des ki nga xam ne mooy Baba Diaw nekk promoteur neen daal combat bi nga xam ne moo war a dox combat Sa Thiès ak Garga Mbossé nee na loolu intéressé na ko trop Babacar waaw ñu koy ñaanal yàlla mu réussir ko tëgg ko ndax moom itam maa ngi ko maanaam nit la bi nga xam ne Baba Diaw borom càmm production xam moo tëgg soq ak gàmmu géey yaa ngi dégg yéen a ngi gis fan yëpp vidéo ci Leewtoo TV te di ngeen ci gisaat yeneen vidéo moom nekk na promoteur bi nga xam ne ren la ñëw si làmb en tout cas en tant que promoteur mais itam ku ne na ne combat yi muy ndax yaakaar naa ne ku tëgg Jackson Pape Ndoye tey nga indi Sokh gàmmu Gueye teg ci Jacob Balde ak Mbagnick kayre ah loolu rek defe naa dafa doy tey defe naa ne bu ne bëgg na Sa Thiès ak euh, Garga yaakaar naa xel war na ko ko mën a nangul te itam war na ko ko mën a parce que li tax mooy am na ñoo xam ne meluñu ni Babacar bëriwuñu wax moom waxam bëriwul te day jëf te loolu dafa am solo trop Baba Diaw ñu ko ñaanal yàlla combat boobu su gënee ci moom yàlla na ko taxawal su gënee itam yàlla na ko yàlla jox ki mu gën si moom Babacar loolu am na solo ni nga wax tamit ki nga xam ne mooy Abdou Diouf buñ ginnaaw buñ taxawee combat am ak ki nga xam ne mooy Gris de nañ daal moom dem na foofu nga xam ne mooy Canada samedi bi Babacar waaw waaw loolu de pour préparer wax na dëgg ndam moom noo ko mën a amee ji teg ko ci yoon jar na ko kon defe naa ne bu demee Canada pour préparer ji pour combat am ak Gris de di jiyee seen tëggu combat boobu kon ñu koy wax ka ni rek ah loolu mooy sóora da ngay dem fi nga fi la doy pour nga mën a wuti la doy pour jéem a gagner Babacar nag ginnaaw dimanche bi ñu génn incident yi fa amoon foofu si arène nationale nee ñu nag euh, lamb ji amoon démb foofu si arène nationale nee na nag sécurité bi doyoon na lool ba xam ne kenn lëmbe bu fa daal waaw loolu moom wax dëgg yàlla démb def nañ constat boobu boo bëggee dégg dëgg démb moom vraiment daa mel ni ki daal ah gën nañoo taxaw taxawaay bi war pour lamb ji mel ni mu war a mele ci tuus yaag ci entrée yeeg géew beeg fépp tummikaay mbër yàgg lépp lu ci ne dem amélioration am na ci loolu nag mooy li war a am dafa fekk ne nag àddina moo tëddee noonu des fois faw jafe-jafe am nga mën a régler jafe-jafe parce que micro bi su amulee problème doo ko mën a dépanner et puis doo mën a doo doo mën a uti beneen micro bu ko gën kon nag xëy na moo tax ba nga xam ne démb daal loolu moom ah, dañu ñaan yàlla nag mu continuer ndax événement yi ren noonu lay teglantoo ba saison bi tëj combat bu ñëw daal nañu gën a renforcer sécurité bi gën a xool nit ñi fu yéeg yooyu parce que tamit loolu mooy war a am parce que mbooloo ba mu mën a doon saa yu dajee rek dangay gis ñoo xam ne moom ay defkati njaaxum lañ dañuy dugg ca biir aj màkkaa gën a foor ci jullit te sag ah, sàcc sang fa mel ni tuleeg màlle <laughs> màggal ak Tuubaa bokk na li gën a foor ci yoonu murit te gis nga noonu lay demee bu màggal jotee gàmmo itam noonu la foore ci yoonu tijaan waaye noonu la foore ci jullit yëpp te gis nga saa yu jotee sàcc sa police day jàpp bay bëgga a dee nga dem Rome bu jotee noonu la fay demee am na ñoo xam ne yàq leen gënal lu ñu mën a am waaw <laughs> jeex na sa sàcc waaw déet bari na ci ay raskat yi jay noonu la demee yow mii sax boo amee ngénte di ngénte sa ngénte am na koo xam ne bu ñëwee ci ngénte li mu ngi xool ay bool ay kuddoog yu mën a sàcc yóbbaale ko wala sa poset sax loolu yéeme na bi ki nga xam ne nag mooy Franc ginnaaw nag bu mu nga xam ne bu mu wanee dooleem si galaay bu mu jógee États-Unis yëpp moom mu teg fa euh, loxo bi nag euh, jot na premier defetam foofu si ñaaxaar week-end bi nu génn comme ni ko journal di waxee rek Franc concède euh, sa première défaite de la saison Babacar waaw loolu moom mooy mooy lambi simple lam la ci waxoon la rek soo yoo ci nekkee moom xaaral lu mel nii te defe naa Serigne Ndiaye 2 moo ko daan ca ñaaxar te boo xoolee moom moo daan Serigne Ndiaye 2 bu yàggul fii loolu moom ci côté boobu nañ ne trouver na tey solution ci franc mm-hmm. parce boo xoolee Serigne Ndiaye franc daf ko sonal ci lit simple boo xoolee mën nañ ne mooy ki gën a sonal yaakaar naa ne tey nag su ñëwee kon dafa mel ni li mu jàngate woon ci franc mel ni ñaaxar yëngu woon nag trop trop yëngu woon na lool. non waaw parce que itam ñu ngi jigluwaat nit ñi rek mais xam naa daal neexoon na parce que fu ordinateur ne Serigne Ndiaye na fa Ibou sengoor Franc ñoom ñëpp ñu ne fa óbbali ah yëngutu woon na te li doy waar mooy li euh, li nu mu ordinateur moomu moo daan ki nga xam ne mooy Serigne Ndiaye yaa ngi dégg yemu ci waaw non mu woon làmbi simple doy na waar final ak daan ko loolu la def suñu jógee nag euh, fi nga xam ne mooy ñaaxaar yi dem euh, dem dimanche si drapeau Malick Nganu avril boobu noonu nee ñu nag ki nga xam ne mooy booy fay ku doon seeti seeti bu bees bi moom moo daan daal càkk fay. Seri Sira <laughs> danaa ko dem booy fay mu ne ma dee ci boole kor sira ma ne ko kon booy fay kor sira ñu nuyu soxnaam sira ndax dem na mu ngi yoon ci ay compétition ñu ngi koy nuyu bu baax a baax booy fay nag dem moo daan caaka fay ñaari fayen ñoo doon finaalu waaye dafa def seede bu rafet xam naa di ngeen ko seetaan ci Leewtoo TV bi laa mu ji jeexee jël naa ko ci biti mu ne daal caaka nit sportif de haut niveau la parce que dafa fair play te yaakaar naa loolu tamit soxla nañ ko. voilà kon jeex na kon démb loolu moo fa am ñu bëre bëre bu yàgg nag waaye Boy Faye daan ko jël bu rëy rëy ñu koy félicité mais tamit di ñaanal Malick Ngom drapeau boobu jig ko parce que démb vraiment daal euh, olof dane koo xamul nam la na koy def nam la defa tax Malick da di na Malikum ñëpp. ñaa ngi dégg bu du woon sax waa làmb mais waa Sénégal ndax jikko ju rafet moom ku ko yor jàppale ne Sénégal yëpp am nañ ci yow cofeel te Malick loolu la ko yàlla may di ko nuyuwaat di ko siyaar di nuyu commission arbitre bi yëpp ñoom Babacar Diop ñu nga foon maanaam ñëpp ñi mu seqal ñoom Matar Diouf kenn maa ngi fa ñoom si toon ñëpp nga fa woon gunge ko muy lu rafet ak ka nga xam ne nag mooy meilleur arbitre bi muy Teneng Diouf moom mooy meilleur arbitre parce que Teneng la tudd maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax Teneng. <laughs> baax suñu jógee nag suñu làmb nañ dem foofu nga xam ne mooy Leewtoo TV démb demoon nañu si làmb nga xam ne mooy ji euh, nee nañu nag caatu Yoff moo daan ki nga xam ne mooy bébé Diouldé Babacar. waaw daan bokk daan bu leer nañ ko mbay fa amoon neex trop waaye di rawatina xam naa diggante Macha Macha Pereira bu Géejawaay ak mbërëm ñoom yàgg maar mi mbay euh, kële Kayre albarka Kayre na ngeen ko xar yéen internet di ngeen seetaan combat bu neex a neex li am solo nag mooy démb caatu yof lam daan def defati na ko parce que caatu yof damay wax ne dafa mën a bëri. mbër boo xam ne ni mu toll noonu bëri bi ëpp na ko dool ëpp na ko parce que bébé julde nag espoiru làmb la boo xam ne nii yaakaar naa ne am na lu mu wane tey parce que yàggul ci làmb ba ñëw fii mu ñëw bëri caatu yof mu daan la du gàcce ci yow. doonte ndam nga bëggoon kon dañ lay wax di courage nga jóg defar yuwaat ngeen bu jiwaat bëre xam ne sport noonu la ki la daan sa nawleel sa morom la caatu yof nag nañ ko bàyyi xel ci làmb mbër bu mën a bëreel nday Kumba Fall la ma gis dem mu bëre Papa Thier expliqué ma wax ma ko ci Leewtoo TV lu doy a doy la parce que dañ dañu déclenché xeex daw daje parce que boo xoolee da am na ñoo xam ne dañ avantage su xeex bi xëy na bébé julde la mais moom bëre bi la moome woon moo tax nag ba ñu dawee mu xañ bébé julde xeex bi moo xam hyperkid la wala ñu tafonte ca kaw mais ca waaw kaw la ko ca kaw la ko euh, non non lu doy doy waar la bëri démb kon caatu yof félicitation di nuyu waa yof yëpp ah waaw euh, di leen wax nekk daal ñoom itam ñu ngi ci lancé bu baax a baax te boo xoolee. tax na ñu jël seen ngeen mu doon. non et puis waa Yoff dañoo sonal sax ik bawal bawal yi boo seetloo. Mm. daaw mu ak kéwél yaa ngi koy wu. bu yàggul fils de Zallo caatu ngéwél. Mm. démbaat bébé julde ak nga xam ne mooy caatu yof ah ñu ngi liggéey de waaw. <laughs> ay lébul lu leer laa la wax ñu ngi jóg. Babacar nag si kàddu leen tàggoo di leen jox xanaa nag nu fàttali suñu mbokk internet ne Prince Sissoko day def point de presse 15 euh, heures foofu si West Foire Leewtoo TV ak Leewtoo point net fa nekk Babacar waaw bu ñu sàgganee sax ñu defal leen ko directement ñu seetaan ko point de presse bi mm-hmm. waaw parce que Prince xam naa tey est-ce que dafa bëgg a ñëw ci diggante Sa Thiès ak Yékini si ñoom ndax coow li bëri na ci. ak programme yeneen programme am ndax Prince moo tëgg ki nga xam ne mooy caat ak Modou Jabu Yoof waaw tëgg na affiche yu bari te yaakaar naa seen jàkkaarloo yu njëkk la 4 avril la ko bëgg def nee na ca Dakar Arena ba ca waaw du mën a ñàkk ñuy profité di nuyu Pape Diouf borom génération consciente ku ne xam na ne le 4 avril mu nga jëm Dakar Arena ak concert bu mag di nuyu ñoom ma ko suba ah. kon tey foofu nga génn kon Wally Seck mu ngi noonu Babacar nag si kàddu yoon leen tàggoo leen jox dig daje suba incha allah mais balaa boobu may nuyu sama <laughs> nuyu sunu yaay mère sa nuyu sama doom Mouhamed Diouf nuyu astane DG Prama Cheikh Khadija Diallo di nuyu samay doom maam Diarra Penda Rokaya ak ki nga xam ne moom mooy Grand Fallou nuyu euh, Asek Chéri Khoudia Seck Abdou Gueye depuis États-Unis euh, euh, Baye Fall Diamaguène papa yi si te nuyu aussi ki nga xam ne moom mooy Ramos Ndiaye Babacar. waaw Ndeye Kumba maa ngi nuyu Ramos capitaine Ramos di la bëgg di la ñaanal jàmm di nuyu internautes yëpp Asi Diagne sama naar bi ci noak sot maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ñaanal yàlla wér gu yaram di ko ñaanal way juram waaw Asi maa ngi nuyu bu baax a baax waa di nuyuwaat rek Babacar bu Modou Lama faramareen bi borom Petersen dem mu ma génne fii Ndeye Coumba Fall gis nga jiin bi chemise bi ak yeneen bagage giri kaña giri kaña la ma wax kon Babacar bu muut la ma danaa leen jaay yére moom boo ci bëggee yu baax demal Petersen. mosul génn sax na ay xeer def nu ku ma jaawale kaña juum ndax ki ma solal moom li ma solal dafa doy waar daal mention spéciale di nuyu sa grand frère Mor Diouf Babacar Modou la ma Petersen Faramareen bi di nuyu képp koo xam ne tamit Faramareen nga du mën a ñàkk di ñaanal ñëpp jàmm jib seen maa ngi lay bëggee ana bës borom siin doomu ndoy yàgg maar ak Kempes ma ca France waaye Ndeye Kumba Fall parce que xam la moo tax des fois nuyu bi des fois ñu naan la ñi ngay nuyu mais nuyu bi du mën a ñàkk Ndeye Kumba ki jënd connexion di la seetaan ba pare yemu ci di la woo téléphone yëkkati yére jox la wala mu ñëw jox la ñoom Jibi Bamba Cheikh Abdoulaat Mbacke noonu na géwél amul ku la defal lu baax wax ko Ndeye Kumba Fall na ñuy wax baax baax nit yi képp koo dégg ñu wax lu baax mu mer booye boo jàppale ni Babacar la mel melul na mu war a mel waaye bu Ndeye Kumba lu baax wax ko